ñu siyaar leen ah, bégge leen ci li nga xam ni ah, mooy seen seen préféré bi ngeen xam ni yéen ko tànnal seen bopp muy Aladji Malick TV mbégte la ñu am ah, ci abonnement yi nga xam ni yéen a kon continuer di ko def ak message yeeg lépp bég nañ ci ndax dara taxul lu ngeen koy def lu dul gëm gu ngeen lu gëm ak information yoo xam ne daanaka lu ngeen fi wax wala lu ñu fi wax du ngeen jar ngeen di dem di ko seeti faneen ndax loolee da ngeen ci teg seen bët muy information xam ne yu wóor la te it information transfert loolu la soxla ndax tamit dëgg mooy njëkk mooy mujj kontaan nañ ci loolu baax a baax kon yéen ñi ko defagul ngeen wéy di abonné ci li nga xam ne mooy euh, seen bi benn la ñu koy dooree muy Sadio Mané mi nga xam ni euh, foo tourné ca Dubaï daanaka photoom lañ koo jëlee di ko jaayee coupe du monde bi nga xam ni Dubaï lay amee ndax doomu sénégalais bi siiw goo xam ni euh, siiw na ko lool ak Gérard Piqué mi nga xam ni ma ngay kenkeñ waaye xelam desandi naa dal ndax bu ñu xoolee ka nga xam ne mooy savi di ab kot sam nga xam ne daanaka ñoom ñaar sax footballandoo noon foofee kon moom Piqué yaakaar naa ni Euh, da dul doyal wala da dul euh, bàyyi football waaye ak retraité am euh, jot na kon tey jii boo amul sens ren ji xaritam dina ko dëjjati fi nga xam ni mooy ca ban ba teg ko ca ban ba te ki nga xam ni mooy Jules Koundé mi nga xam ne daanaka ñoom gone Barcelone Euh, jënd nañ ko te dara doxul ñu jënd ko lu dul axe boo xam ne bu fere lay doon bu doon xale boo xam ni daanaka dina mën a doxal ca euh, axe ba lu am solo moom Xavi mii mi nga xam ni euh, digg militaire ba tamit bu ngeen xoolee defaraat na ko ba mu baax ak ki dubluuram bu ñu demee ba ci tamit ci li nga xam ne mooy côté càmmoñ ga en Fati nga fa ñoom euh, ka nga xam ni mooy Ousmane Dembélé euh, fële ca Pointe ba mu am fa tamit ay joueurs yoo xam ne yu extraordinaire la ñu doon kon Barcelone euh, foofa noonu nga xam ne Lewandowski ma nga fa kon Barcelone nekk na équipe boo xam ne fi mu toll nii daanaka benn équipe gënu ko. Euh, complet ci monde bi loolee tamit euh, tawféex lañ ci ñaanal supporters yi nga xam ni euh, ñooy yu Barcelone yi nga xam ni ñoo nekk di ko bàyyi xel moom Xavi mi nga xam ni président ba am na yaakaar ju rëy rëy ci moom pour mu yóbbu équipe bi foo xam ne fu solo fu am solo la loolee ñu bari am nañ ci yaakaar te sunu borom mën na koo def moom Xavi moom nga xam ni sax ginnaaw président am yi mu yëkki woon bëgg ka nga xam ni mooy Lionel Andrés Messi nga xam ni foofu la fere ca Barcelone nga xam ni ñu toqantal ko bale na ci moom nekk ci moom kon foofee jàpp nañ ni fa la war a mën a jeexale loolu la président bi bëgg te nëbb ko benn yoon yëkk ko ci ay kàddu waaye fekk na ni moom Christian euh, moom mi nga xam ne mooy Messi euh, gone Paris Saint-Germain yi bëgg nañ koo yokkalaat fële euh, ba 2024 waaye loole kat di saf yi nga xam ne ak mooy président Barcelone bi ñëw gi mu ñëw mën naa am tamit loolu moo waral Messi wax na ni moom bala moo wax lu jëm ci wàllu avenir am ak kii contrat dara daa bàyyi ba dem coupe du monde bu ñëw bu demee coupe du monde ba ba ñëw rajaxe ko tas ko tasaar bu ko defee bu dikkee door a yebbi ay kàddu yoo xam ne daanaka dina ko yebbi ci diggante Paris Saint-Germain ak Barcelone gi nga xam ne ñoo ko toqantaloon ñëw gu nu bëgg mu ñëw foofee ca Barcelone loolu Xavi euh, fi mu toll ni bëgg na ko temme ndax moom mi nga xam ne ñoom ñaar noo defandoo lu ne fële ca Catalan ya nga xam ne daanaka bokk na ci meilleur club du monde yi loolee su fekkee am na tamit ba mu bàyyi football foofee ca Barcelone bu ñëwee di ko jàppale ci li nga xam ne mooy banc bi bu ko defee ñoom ñaar euh, bu nu taxawee di doxal ca Barcelone daanaka gone yi nga xam ne ñooy nekk foofu di fa football bu nu xoolee Messi xool Xavi euh, seenu taxawaay ci FC Barcelone daanaka équipe bu nu téyee même bu fekkente ni amuñu tànk yoon football sax seeni xol ak seen dangar naa mën a gagné équipe boobee ñuy dajal loole dina doon lu am solo loolee nekk loo xam ni lu Xavi euh, bëgg la li ci équipe bi nga xam ni euh, mooy Barcelone Messi euh, moom moom mi nga xam ne tamit démb jóge na le nga xam ne ci entraînement bi nga xam ne doon na ko yëkki di waajal seen danielle match bu fekkente ni ànd nag dogalu borom bi léegi ci info transfert yi ginnaaw bàkk bi. info transfert yooyu dañ koy doore ak ñetti euh, sénégalais yi nga xam ni euh, bu leen ko doon géntaloo du ngeen ko mën a gëm waaye dëgg la tey ji nga xam ne moo tombeek ñaar fukki fan ak euh, juróom-ñeent ci weeru juillet seen contrat yi yéen amoon seeni i équipe euh, Crystal ak fële ca Italie euh, ñoom ñi nga xam ne ñooy ñetti sénégalais kenn ku ci ne euh, sab contrat fa nga nee woon amatoo fa contrat kon tey jii bi ñu xëyee ñoom ñoo xam ne daanaka ñoo yor seen cëggul guy fu leen neex dem football ko mu mel ni Cheikhou Kouyaté moom mi nga xam ne sax mooy capitaine équipe nationale Sénégal daanaka proposition yi nga xam ne ñoo ëpp am na Angleterre ay Newcastle waaye nag France la ëpp ña nga xam ne ñoo ko fa bëgg andi ko fa mu football fa moom Saliou Ciss nag moom mi nga xam ne tamit daanaka moom a latéral droitub Sénégal bi nga xam ne foo ko teg mu dem boo ko tegee ci axe mu dem boo ko tegee ci latéral gauche mu dem olympique de marseille roof nan ab galgal boo xam ne ah, daanaka galgal booba bu nu ko góllóor bee ah, li mu mën a indi ci digg milieu terrain bi mooy goney marseille daal di koy jël téye ko foofu mook Cheikh Ahmadou Bamba ah, ak ka nga xam ne mooy Papa Gueye bu ko defee ñuy doxal foofe ca olympique de marseille gi nga xam ne lu man di am lu ne équipe boobu équipe bu yi lay doon boo xam ne daanaka sénégalais yi bari nan fa ka nga xam ne tamit mooy Keita Baldé moom it Italie googee daanaka fa la war a burumloo xool fu mu jëm ndax fu muy mujjee ak i mbiram ñoom ñett ci ñëpp daal lépp loo xam ne am na ci contrat boo xam ne euh, génn na ci seeno lëf dinañ leen ko fi indil euh, ci seen bi ngeen taamul seen bopp kii moom euh, bëggut dem fenn tayit toxal di ka nga xam ne mooy ab am la mu bëgg tamit moom mooy daal di koy téye mu football foofee nga xam ne mooy Angleterre bu ko defee ñoom ñu ànd di doxal loolee nga xam ne mooy championnat Angleterre boo xam ne daanaka danañ ca mën a yëkki lu am importance moom mi nga xam ne daanaka mën naa dugal ay bii trop comme am na nopp defence boo xam ne Koulibaly renforcé na ko ba fi mu toll nii défense ba moo gën a aw sàkket Ah, kon fi mu toll nii may waxee ak kon ah, dara desatul ci seen i mbir lu dul bàyyi ko mot football bu ko fee def déwén ñu jaxase Angleterre jaxase Europe gi yëpp looloo fi war doon ci Aladji Malick TV ci kanam tuuti ah, merci beaucoup